الأكوان message du Coran القرآن هاديا لله يا رسول Une production de Radio Sénégal Internationale réalisée et présentée en français et en wolof par Mamadou Chérif Diop. aouzubillah mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasulillah nabina muhammad wa alihi wa sahbi kaana yalqaa'u jibril kulla laylatin min ramadan yudarisuhu alquran assalamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre frère El Hadji Mokhtar Diouf nous sommes ensemble pour imiter la sunna de la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui que Sayyiduna Jibril alayhi salam rencontrait toutes les nuits du Ramadan pour réviser le Coran mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhanahu wa ta'ala mi nu wërsëgal daje ci bis yu yi ci ndimbali sunu mbokk El Hadji Mokhtar dellu di teg suñu tànk ci sunna bu mag mooy yonent bi sallallahu alayhi wa diiru weeru koor jibril da daan ñëw guddi gune ñu ànd di nafar alquran ainsi je vous propose aujourd'hui la sourate Hujurat une sourate qui doit figurer dans tous nos programmes d'éducation islamique et même laïque et même je dirais dans les programmes at puisque cette sourate présente des valeurs universelles mbokk yi ñu fas yéene ànd ci suratul hujurat saar boo xam ni léppam muhkamaat la saar la boo xam ni bépp programme njàng ak jàngale ak yar waroon na bokk ci lañu ciy boole moo xam nag réew ma lislaam lay dox moo xam réew ma la moo xam même réew ma dañu ne sax gëmuñu yàlla subhanahu wa taala amis auditeurs sourate Hujurat interpelle cinq fois le croyant ya ayyuha alladhina amanu interpelle une fois l'humanité dans sa totalité ya ayyuha nas vous les gens et cette sourate conclut en nous expliquant comment faire pour avoir la foi qalat al arabu amanna les bédouins ont dit qu'ils ont cru mbokk boo jàngatee saar bi da ngay fekk juróomi yoon muy woo jullit ñi yaa ayyuha alladina juróomi yoon benn yoon ya ayyuha naas mu wax ak adduna bi bépp képp kuy nit ak kuy jinne rek tëj saar bi nag ci xamal nu wan yoon la ñu mën a jaar pour am ngëm jaare ka ca la kaw-kaw ya waxoon arab ya waxoon na nun dey gëm nañu yàlla ami auditeur la première interpellation après bismillah et rahman et rahim nous dit croyants ne devancez pas Allah et son envoyé son messager selon les savants devancer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, c'est faire une chose ou dire une chose sans savoir ce qu'Allah en dit réellement. Normalement, dit le Lahdari, un responsable ne fait rien qu'après avoir su le jugement de Dieu subhanahu wa ta'ala bokki woote bi njëkk gannaaw bismillah e rahmaani rahim mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi bu leen jiitu yàlla ak yonentaam boroom xam-xam yi ni jiitu yàlla ak yonentaam mooy ka nga xam ni day def mbir wala muy wax mbir te mbir mooma xamul lu ci yàlla atte laxdar wi ni laa yaxillu warul ci mukallaf an yafala filam xatta yaxlama xukma allahi fi daganul ci jullit muy jëf jenn jëf wala di wax jenn kaddu lu dul dafa xam atte yàlla ci mbir mooma wala ci kàddu googu et le verset poursuit dit craignez Dieu le craindre signifie s'informer s'informer quand on veut faire du commerce quand on veut faire de l'agriculture de l'élevage ou toute autre agri activité, s'informer sur comment l'islam organise cette activité. Et sachez-le, Allah entend et sait tout verset premier mbokk yi mu daal di tëj nag laay jini ni dànkaafu nu ni wattaqullah na ngeen moytu yàlla ngeen ragal naka lañu koy moytoo fii ci bii siyaaq mooy boo bëggee def euh, commerce nga bëgg bay nga bëgg yar nga bëgg def benn programme wala benn projet da ngay dem lijjanti ji bala nga koy tàmbali lan la ci yàlla wax nan la ñu ko war a doxale ci lislam mu inna allaha wér na ni yàlla daal samiun mooy aji dégg ji lépp alimun mooy ki xam lépp amis auditeurs la deuxième interpellation nous dit croyant Ne couvrez pas de votre voix celle du prophète. N'élevez pas la voix en sa présence, comme vous le faites entre vous, sinon vous allez annuler vos œuvres sans en avoir conscience. Amis auditeurs, en vertu de ce verset 2, on ne doit jamais prononcer le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sans son titre dire simplement Muhammad non il faut dire prophète Muhammad et prier sur lui ne pas s'arrêter à dire prophète Muhammad mais prophète Muhammad paix et salut sur lui alayhi salaamullah mbokk yi ñaareelu woote bi wooway gëm yi ni leen yaa ayuha alladina amanu laa tarfahu aswaatakum bu leen yëkkati seen kàddu ba mu tiim di sut kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa ali wala tajharu lahu bil te bu leen ka yuuxu ci kanamam di yuuxu bu ngeen di wax ak moom ka jahri baadikum li baadin mel na koy wax ak sa moroom comme ni ngeen koy defee yéen ci seen biir loola su ngeen ko defee an tahbata amalukum wa antum laa ta laa tashurun seen jëf yëpp day yàqu màbb te du ngeen yëg nag ni seeni jëf yàqu na amis auditeurs ainsi de son vivant comme après sa mort nous devons témoigner au prophète Mohammed paix et salut sur lui le respect qui lui est dû le respect dû à son statut et la meilleure façon de le respecter de l'honorer c'est de suivre simplement son exemple et d'appliquer ses enseignements et ses orientations mbokk yi bon da ngay gis moo xam yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu ngi dund wala génn na jamono dañu ko war a jox gëddaam gëddaam nañu ko koy joxe nag mooy topp li mu jàngale roy ko ci jëf et le verset poursuit ceux qui baissent la voix en présence du prophète sont ceux dont Allah a jugé le cœur apte à la taqwa ils auront son pardon et une immense récompense verset 3 mu wéy mu ni nag inna allazina yagudduuna aswaatahum inda rasulillah ñi nga xam ne dañuy wàccee seen kàddu ci kanamu yonent bi alayhi salaam teggin yaa ngoog mu ne ko ulaayika ñooña ladina amtaxana allahu xulubahum li taqwa ñooña yàlla peese na seeni xol examiner que ba xam ne xol yi am ngëm am ragal yàlla mu sol ko ci lahum ñooña day maxfiratun yàlla dana leen baal seeni bàkkaar wa ajrun azim yàlla dana leen defal payoor gu rëy en d'autres termes il ne faut jamais répondre quand on vous dit un hadith du prophète Mohammed paix et salut sur lui ne jamais répondre oui mais oui mais on doit néanmoins s'assurer que ce hadith est authentique comme Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq quand les Mecquois l'interpellèrent sur le voyage nocturne et l'ascension il leur demanda est-ce lui qui l'a dit donc il a vérifié l'authenticité de la parole ils lui disent oui ils l'a dit c'est vrai et depuis ce jour on l'a appelé as-Siddiq mbokk yi bon li nga ciy dégge mooy yonent bi alayhi nekku fi waaye mu ngi fi ci jàngaleem mu ngi fi ci waxam bon bu ñu lu wax mukk ni la nee na wax la xadis nga ne waaye teg ca nag naam war nañu seet ndax wax ja wér na wér lu wax ja bu wéree ñu topp bi wérul ñu xool lu ñuy def noonu la sayduna abu bakrin siddiq radiallahu taala anhu defoon ba ko waa Makka ñëwee nag ni voilà léegi nag tey moom am nañu lay ci kaw Aboubacar ni ko sa waa ji nee na biig de dem na fi ba baytul muqaddis dem fi juróom-ñaari asamaan jéggi na sax asamaan yi dem dellu si mu ngi nii mu ni leen ndax moo ko wax gis nga ndax moo ko wax mu wérlu xaddis bi gaaña ni ka moo ko wax mu ne leen su fekkee moo ko wax day dëgg la dem na fa biig dellusi na amis auditeurs, c'est ainsi que doit se comporter le musulman. Et le verset 4, 5 dit, Ceux qui t'appellent du dehors ne se comportent pas correctement. Ils auraient mieux fait d'attendre que tu sortes. Dieu est clément, néanmoins, et miséricordieux pour ceux qui se repentent mbokk yi mu ci jox ñu mu ne inna alladina yunaaduunaka min warai alxujuraat ñi nga xam ne dañuy toog ca mbedd ma wala taxaw ca digg kër ga di la yuuxu di la woo wala nit ki romb la di dem nga naan ke eey mu ne aktharuhum laa yaqiluun mu ne ñoom ñooña amuñu xel xamuñu teggi yi walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum bu fekkoonte ni ñoom day muñ nañu ba nga génn ñëw ci ñoom loola mooy gën fuuf mooy ëpp njëriñ ci ñoom wallahu gafuur waaye nag yàlla dana baal képp ku def li te tuub rahimun delloo ko ay xéewalam yu dul jeex sur ce il est un devoir de respecter l'intimité et le rang de l'autorité que ce soit l'autorité familiale l'autorité du village l'autorité du quartier, l'autorité du pays, et même de respecter l'intimité et le rang de toute personne, grande ou petite, quel que soit son statut social, puisque la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur le nous dit, donnez aux gens le respect qui sied à leur rang, anzilu nnaasa manazilahum bokk yi ci lii lay wax liñ ci jàngate mooy wareef la ci jullit bépp kilifa ku mënti doon ak fu mënti toll moo xam ci biir kër gi la ci quartier bi la ci réew mi ci àdduna bi foo dajee kilifa jox ko gëddaam wàccee ko wàccuwaayam yemul nag ci kilifa rek bépp doomu aadama moo xam moo la mag moo xam yaa mag moo xam yéen a maase ak lu mën a doon melokaanam ak nekkinam ci askan wi wàccee ko wàccuwaayam loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax mu ne anzilu naasa gis nga mu ne wàccee leen nit ñi waxul jullit waxul dafa ne nit rek wàccee ka manazilahum wàccee leen leen seen wàccuwaay jox leen leen seen gëdd respecté leen leen fonk leen nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal ya rasulallah La troisième interpellation de Suratul Hujurat nous dit, croyant, si une personne immorale, peu digne de fois vous donne une nouvelle, vérifiez-la. Sinon, vous risquez à tort de vous brouiller avec votre prochain, de lui faire mal et de regretter après. verset 6 mbokk yi ñetteelu woo bi mu woo jullit ñi yaa ayyuha alladina amanu mu ne in jaakum faasiqun boo xamee ni bii kàccoor koo xam ni ngëmam doxalinam ci société bi nekkul ba gën ñëw na indi leen xibaar ba fatabayyanu na ngeen leerlu xibaar boobu wérlu ko an tus an tusibu qawman bi jahalatin su ngeen ko deful dingeen tooñ ay nit dal ci seen kaw ci réer ak ñàkk xam ngeen wëlbatiku nag ala ma faaltum naadimin di réccu nan noo xamewuma ko woon ni waa ji moo ma ci dugal moo ma réeral diw moo ma ko wax au-delà du prétexte de sa révélation qui parle de Uqbata ibn Abi Muayt et Banu Mustaliq qui auraient refusé de lui donner leur zakat ce verset est d'une actualité brûlante avec les réseaux sociaux dont les publications brisent des ménages, brisent des amitiés, rompent des liens de parenté. leur publication ont même pris des vies, tué des personnes avec leur torrent de mensonges qu'on appelle buzz contre d'innocentes personnes mbokk yi bu jàllee sababu nuzul bi ñëpp xam nañ ne laaya ji dafa wàccoon ci Walid ibnu Uqbata ibnu Abi Mu'ayt yonent bi alayhi salaam yónni ko ci banul mustaliq demul mu dikk ni que lànk nañu duñu joxe seen asaka ànd ak loolu boo ko jàngatee tey da ngay gis ni dafa mel ni tey la wàccoon ci sunu jamono bi ñuy dund ak internet beeg réseaux sociaux yi nga xam ni tas nañu kër yi tasaare mbokk gi yàq kóllëre yi jël nañu sax ay bakkan ndax ay nit harcelé nañ leen ci ba ñu ba ñu rey seen bopp xaru ndax ay fen fen yépp nag dañu koy rafetal de ko base jëme ko ci ay nit ñoo xam ni ñi mën nay am la ñuy wax seen yoon nekku ci amis auditeurs pourquoi c'est une question que je me pose toujours pourquoi un musulman à qui on demande de ne pas accepter le témoignage d'un morale quand il s'agit de la lune, quand il s'agit de, de, notre culte, comme dit le verset 4, Sourate Nour, comment peut-il confirmer des informations dont il ignore la provenance, dont il ignore l'auteur, dont il ignore la motivation mbokk yi laaj bi may laaj sama bopp toujours mooy nan le jullit gannaaw ñu sant que ni ko yow laa taqabalu lahum shahadatan abadan ci ñan faasixoon yi ñu ne ko bul jël mukk seen seen seede bu leen déglu lu ñu la wax nanga ko vérifié suratu nuur kooku naka la mën a demee ñu sànni ay xibaar rekk ci jaww ji mu mu forke rek ci portable am loola xamul fu mu jógee xamul ku ko wax xamul lu tax mu wax ko lan moo tax moom mu bëgg a wéral li te moom ñu ne ko weer wi sax bu ñu la ko waxee na seet ki la ko wax ndax wér na wala wér sa jaamu yàlla lépp lu luñ la ci wax kala wax na nga ko na nga ko vérifier seet kan mooy wax ak yow et même à supposer que les réseaux sociaux ne sont que des moyens nous devons néanmoins vérifier l'information qui nous vient d'un étranger et 99 pour cent de ceux qui nu donnent des informations sur le net sont pour nous des inconnus, des étrangers. Donc nous devons passer leur publication au filtre du Coran et de la Sunna si réellement nous sommes des croyants mbokk yi même nit mën na ni la réseaux sociaux yi kat ñoom jumtukaay lañu rek mu ngi mel ni paaka loo ci def rek waaw même bu dee jumtukaay kanu koy jox moom xamuñu ko kanu koy jox te li ëpp mën nga ni téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi lay jox xibaar bi xamuloo leen waa bon lan moo tere xibaar yooyu bépp bu ñu ci jot ñu xool ko ak bëtu alquran natt ko ak bëtu sunna ba xam ndax wér na wala wérul bu nu ko xoolee mu dëppoog alxuraan ñu jël dëppoowul ak moom ñu sànni fële ensuite amis auditeurs ce verset exige que nous nous adaptons aux orientations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et au Coran. Et non pas que nous plions le Coran et la Sunna à nos visions, que nous les adaptions à nos désirs. C'est le Coran qui est le critère pour juger et évaluer toute chose. Le Coran n'est pas un faire-valoir à nos désirs et à nos bon vouloir mbokk yi bu loolu jàllee boo jàngatee laay ji danga ciy dégg ni li muy li mu nuy sant mooy nu dëppale sunu mbir yépp ak njàngale yonant bi sallallahu alayhi wa ali dëppale sunu mbir yépp ak alquran waaye du ñu jël alquran moom wañ loxoom pour mu dëppoo ak li nu bëgg dëppoo ak sunuy gis-gis alquran mooy nattukaay bi moom ci lañuy ñuy àttee mbir yi warul nekk loo xam ne li jamono bu kenn bëggee benn mbir rek dal di ni ilimaan lan la alquran wax ci lii nga nga nga dammal ka laaye layyil ko ci mbiram alquran nekkul pour layyil kenn dafa fi nekk pour jubal doomu aadama teg nu ci yoonu siratul mustaqim enfin amis auditeurs sachez dit le verset que l'envoyé de Dieu est en permanence je dis en permanence parmi vous Il est en permanence parmi nous par sa sunna. Il est en permanence parmi nous parce que chaque fois que quelqu'un prie sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Dieu lui rend son âme et il répond à la prière de cet individu. Donc celui-là, on ne peut pas dire qu'il est mort, mais il est en permanence en activité dans ce monde. Donc l'envoyé de Dieu est parmi vous. S'il suivait ce que vous lui suggérez, vous seriez toujours dans les problèmes mbokk yi bu loolu wéyee laaye ji teg ci ni waalamu anna fiikum rasulallah na ngeen xam nag ni yonantu yàlla bi mu ngi ci seen biir mu ngi fi jógu fi tey jii ñun yonantu bi alayhi salaam génn na àdduna génn àdduna waaye mu ngi fi ak sunnaam ak jàngaleem yonantu bi sallallahu alayhi wa ali mu ngi fi ci jamono nee na ku julli ci man ni sallallahu alayhi wa ali tudd ma julli ci man yàlla delloo ma sama ruux ma julli ci yow waaw est-ce que julli ci yonent bi alayhi salaam dog na bon nga ni yonent bi alayhi salaam kay dañul nekk ci àdduna bi di def réaction ak doomu aadama yi di wax ak ñoom di leen delloo tontu di leen delloo nuyoo mu ne gis nga law yutiicukum fi kathirin min al amri la anittum bu fekkonte ni lu bare ci li ngeen kanaan nañu ko defe nii defe ka nii topp na leen te bon dangeen di toskare bon nga ni même bu fekkoon ñun wañ nañu loxo alquran ak sunna ba dëppale ka ak sunu mbir bu nu ko dëppaleek sunu mbir moom bu nu defee mbir moom mbir mooma day yonjax day échec toskare kese lañ ci jële de nos jours amis auditeurs Ce verset s'adresse en priorité aux imams et aux islamologues qu'on utilise toujours pour justifier l'injustifiable. Je vous avais raconté cet imam invité à s'exprimer sur l'homosexualité à la télévision, c'était en Égypte, et qui, à la porte du studio, demande à l'animateur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? est-ce que tu veux que je développe dans le sens de légaliser ou que j'interdise l'homosexualité mbokk yi bu dee tey jii ci fi ñu toll tey lay ji dafa joxañ baaraam yilimaan yi joxañ baaraam ñi nga xam ni nee nañu ñooy borom xam-xamu diine joxañ baaraam ñi nga xam ni ñoom ñooy jàngale ci média public yi ak média privé yi ndax ñoom lu gën a bare dañu leen di jëfandikoo ngir lay yi loo xam ni kenn amul layam nettali woon na la fii limaan jooja yusuful xardaawi moo koy nettali ci téereem ca Égypte ñu invité que benn émission ci wàllu ngóor jigéen bi mu demee bay waaja dugg ci studio bi mu wax animateur bi ni ko waaw bu ñu duggee lan nga bëgg ma def danga nga bëgg ma wax la ni dagan na ma daganal ko ci lislaam wala danga bëgg ma xaraamal ko ci lislaam mbokk yi lii musiba musiba gënu ko rëy képp kenn ci ñun war na ragal yàlla bu toogee ba ni bismillahi rahmani ci turu yàlla laay wax nga wax dëgg-dëgg ci turu yàlla te bañ ci bokkaale keneen enfin di le verset sept huit Les gens bien guidés sont ceux qui, par la grâce de Dieu, ont de l'amour et de l'admiration pour la foi. Sont ceux qui éprouvent de l'aversion pour l'impiété, la perversité et la désobéissance. Cela est une faveur et un bienfait d'Allah. Et Allah est savant et sage. J'ajoute que cela n'interprète pas le Coran selon leur passion ou bien sur simple commande qui leur vient de l'extérieur mbokk yi laay juróom-ñaar juróom-ñett suratul xujuraat mu ne walakin allaha xababa ilaykumul iman waaye yéen du ngeen doxale nii di wañ loxo yonent bi alayhi salaam di wañ loxo alquran ndax lan ndax yàlla dafa leen bëggloo ngëm yàlla zayyanahu fi qulubikum mu taaral ka ci seen xol ba mu muur lépp wa karraha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyaan mu sibloo leen nag li nga xam ni mooy weddi yàlla sibloo leen li nga xam ni mooy mooy ndigalu yàlla sibloo leen lépp loo xam ni lii njombe la ak jëfu kàccoor ak saay-saay ulaayika ñooña day hum ñoom dong arrachidun ñooy ñi nga xam ni ñoo tege ci njub fadlan min allah loola nag du seen jàmbarte du seen baax du seeni pexe du seeni man-man fadlan min allah loola ngëneel la gu jóge ci yàlla wa nicmatan ak xéewalam gu mu leen defal wallahu yàlla daal alimun mooy ki xam lépp xakimun mooy ki xereñ nu ñaan ko moom al xakim mu wërsëgal nu boole ñu ci ñi muy taaral ngëm ci seeni xol wërsëgal nu boole ñu ci ñiy sib weddika ak dika moy boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal anta ya mahmud خذ من سيوف الله يا رسول الله Puis, amis auditeurs, vient la gestion des conflits, la médiation en islam. Le verset 9 nous dit, Quand deux groupes de croyants se battent, se querellent, conciliez-les. Si l'un refuse, unissez-vous contre lui et combattez-le jusqu'à ce qu'il se soumette à l'ordre de Dieu. Et alors, réconciliez-les dans la justice et l'impartialité. Dieu subhanahu wa aime les justes mbokk mu ñëw nag ci naka lañuy ñuy faye ay naka la ñuy doxe ci diggante ñaari nit ñu xuloo réero mu ne wayn taifataani min al muminin bu ñaari kuréel ci jullit ñi tatalu di xeex di xuloo di xiiroog di ŋaayoo mu ne fa aslihu baynahuma na ngeen defar seen diggante fa in baad ihdahuma ala al oxra fa qaatilu allati tabri xataa tafiya ila amrillah mu ne bu kenn nag lànkee ni moom du juboo day wéy ci xuloo ak xiiroo ak ŋaayoo mu ne mànkoo leen yéen ñëpp jullit ñi ngeen dal ci kawam xeex ka ba mu nangu topp li yàlla subhaanahu wa taala bëgg te mooy juboo fa in faat bu dellu seen ak topp li yàlla bëgg fa aslixu baynahuma bil adli bu boobaa nag ngeen defar seen diggante ci njub ci maandute ci justice wa aqsitu na ngeen jubal bu ngeen dee jubale ay nit inna allaha yuhibbu almuqsitin yàlla dafa bëgg ñi nga xam ni dañuy maandu duñu parparloo duñu ñu ànd kii du jaxase di taal xal les croyants sont des frères dit le verset Faites que l'entente et la concorde règnent entre vos frères. Craignez Dieu afin qu'il vous fasse miséricorde. Verset 10 surat Hujurat mbokk yi laaye fukk dal di ñëw nag wane ni jullit ñi waruñu xeex waruñu xuloo juboo rekk a war dox seen diggante lu tax innamal muminuuna ixwa jullit ñi ñooy mbokk uxwatu diin mbokkoo pas-pas waxul mbokkoo nasab de deret mbokkoo pas-pas moo gën a rëy moo jiitu moo fare kaw fa aslihu bayna axawaykum bon nangeen defar seen diggantey mbokk fexe leen ba mbokk gi rafet ba mbokk gi taaru ba mbokk gi juboo wattaqullah ragal leen yàlla laallakum turhamuun su ko defee yàlla yërëm leen li nga ciy déggee mooy ñiy tas mbokk gi di dagg diggante yi ñooñu yàlla du leen yërëm la nga cay dégge mooy ñooñu ragaluñu yàlla subhanahu wa taala amis la quatrième interpellation nu dit croyants ne vous moquez pas les uns des autres ceux dont on se moque sont meilleurs que ceux qui se moquent d'eux qu'aucune femme ne se moque d'une autre femme celle dont on se moque est meilleure que celle qui se moque d'elle ñenteel bi yàlla woote yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi ma gëm waxula ku ko gëmul de képp ku ne gëm na yàlla yàlla mu ne la laa yasxar xawmun min xawmin bul bu benn nit di reetaan ak di sabote ak di yëjji beneen nit asa an yakunu xayran minhum gis nga képp kooy ree moo la gën yàlla mu ne moo la gën wala nisa min nisa benn jigéen bu mu kokkali di mokke di sabote di tuutal moroomu jigéenam en an na xayran min hunna bu ko defee day naka wér ni kii muy mokkeeg di ko suufal ak di ko sabote moo ko gën fuuf parce que amis auditeurs les femmes ont l'habitude de minimiser et de ridiculiser leur père Allah subhanahu wa ta'ala spécialement à elles bien qu'elles sont comprises dans l'interpellation ya ayyuhalladhina amanu vous les croyants tout le monde voit comment une femme détaille une autre femme qui passe de la tête aux pieds comment elle se moque de son mariage de couleur de la coupe de sa robe de sa démarche de sa façon de etc et de sa mbokk yi gis nga mu settee jigéen ñi fekk jigéen ñi ñu ngi bokk ci yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm jigéen ñi ci lañu bokk waaye mu seppi leen wax ak ñoom ndax jigéen ñi ñoo gën a bare lu ñuy mokke di saboteeg di wokkante seen moroomu jigéen boo dee seetlu da ngay gis bu jigéen rombe moroomu jigéenam na mu koy xoole ca tànk ya ba te kawaru boppam commencé mokke xoolal couleur yi mu jaxase àndul robbam bi de xanaa ka ñawal xool ka ni muy doxe kawaram gi musóoram ga kolam ga ami auditeur sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha fit un jour une remarque sur la petite taille de notre mère Sophia radiallahu taala anha en présence de la meilleure des créatures Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'homme le plus juste entre ses épouses. Et qui lui dit, ta remarque, ta remarque Aïcha, polluerait la mer si on la mélangeait à son eau bokki Seydatuna Aïcha nettali na bis mu ngi toog ak yonent bi alayhi salaam rek ni ka ah yow day doy na sa sufi sa sufiyatu mu gàtt mii ni ndugur nii yonent bi sallallahu wa ali ni ka laqad qulti kalimatan law muziba bi maai lbahr la mazajatu mu ne ko gis nga yow Aïcha xamoo sax bàkkaar bi nga def ni mu rëy wax bi nga wax jëme ko ci sa nawle bi gis nga bu ñu ko jëloon tëmbal ko ci géej gi géej gi yëpp day nëpp day tufe jën yi dee adduna bi pollué donc amis auditeurs le verset poursuit et dit ne vous calomniez pas ne vous donnez pas des sobriquets des surnoms négatifs c'est vraiment mal de donner un qualificatif pervers un nom de perversité d'immorale à un croyant mbokk yi lii lépp moo tax laay ji continuer mu wala talmizu anfusakum bu leen di ŋóobi seen seen bopp bu leen di ŋóobi seen bopp mooy di wokkante di piisante ci nit wala tanaabazu bil alqaabi bu leen di dàkkental nit ki xoolal ma sàmba kor mbayang bi xoolal ma diw li wolof naan dàq sa ganaar waxaale ci sa soxla bu ko def lu tax mu ne bisal ismul fusuqu baadal iman dafa bon ki nga xam ne gëm na yàlla ñu koy dàkkental turu kàccoor turu saay-saay enfin amis auditeurs malgré la gravité de ces péchés Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte du repentir à ceux qui le commettent il dit ceux qui ne se repentent pas sont véritablement les injustes donc ceux qui se repentent j'accepte le repentir verset 11 bokki yàlla wax seen gravité ak ni mu rëy waaye mu tijji buntu tuub buntu jéggalu buntu balu mu ne waman lam yatub képp koo xam ni def na yi bàkkaar ba pare sax ci bañ tuub fa ulaika humu dalimun ñooñu ñooy ñi tooñ seen bopp la nga cey dégge mooy képp ku ko def ba pare tuub yàlla nangul la sa tuub jéggal la say bàkkaar mais ami auditeur il faut signaler que le pardon de tel péché ne s'arrête pas seulement à astaghfirullah il implique la réparation des torts commis par exemple retourner là où on avait calomnié une personne dit du mal de lui retourner là-bas et dire du bien et se dédire dire que ce que j'avais dit c'était pas vrai car la meilleure des créatures Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit, rien n'est pire que quelqu'un qui rabaisse, qui ridiculise son frère musulman. Tout, sachez-le, chez le musulman est sacré. Son sang est sacré, ses biens sont sacrés, son honneur est sacré, sa dignité est sacrée, sa réputation est sacrée. yamul dong ci astaghfirullah ànd ak yàlla mooy baal ko neex boroom xam-xam yi ni dafa laaj defaraat la nga yàq lu mel ni ki jëw nit xam nga boo ñëwee ci nit ni ko jëw naa la wax naa la nangam kooku mooy seen diggante yàqu na àdduna ak àllaaxira bul dem ni ko jëw naa la wax naa la nangam dellul fa nga ko jëwe woon ca ña nga ko jëwe woon ca ña nga waxe woon ci moom nga ne leen man kat diw la ma waxoon ndeke njuumte la melul noonu wax ci moom lu rafet loo xam ne raxas na deram setal ko wecc ci ñawteef bi nga tegoon ci deram fekk fekkewu ndax ki gën ci yàlla bind wax na mu ni bi hasbi mri'in min ash-sharr mu ne doy na ci nit mu nekk ni moo yées ci nit ñi an yaqura axaahul muslim ci muy xeeb di doyadal di tuutal mbokkum jullitam kullul muslimi alal muslimi mu ne gis nga lépp jullit sa mbokk jullit léppam araam na ci yow dammuhu deratam araam na nga tuur ko maaluhu alalam araam na nga laal ko ci lu ko neexul wala nga yàq ko irduhu ngoram araam na nga yàq deram ñaan yàlla subhaanahu wa ñaan ka mu wërsëgal nu boole ñi ci ñi muy musal ci xeeti bàkkaar yi wërsëgal du boole ñi ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na ko defal fi al akwan mustafa arrahman بالقرآن هاديا لله يا رسول الله Mes chers amis auditeurs, la cinquième interpellation nous dit Croyants, évitez les soupçons. Certains soupçons ne sont que des péchés. Ne vous épiez pas entre vous. J'ai dit, même quand tu rencontres quelqu'un en cours de route, Si tu respectes ce verset, tu ne lui demanderas pas où il va. Parce que tu lui dis où tu vas, il se peut qu'il ne peut pas te dire où il va. Il ne peut pas non plus te dire d'où il vient. mbokk yi juróomeel bi mu woo jullit ñi mu ni yaa ayyuha alladina aamanu jullit ñi bu leen yëddoonte ijtanibu kathiran min adhan te ngeen moytu njort njort bu ñaaw yàlla mu ni inna baada ni ismun bépp njort bu ñaaw bàkkaar la njort bu ñaaw bàkkaar la boroom xam-xam yi ni boo rombee nit sax ngeen daje ci yoon rek muy dem waxtaanal ak moom waaye bu ko laaj foo jëm walla foo jóge parce que foo jëm foo jóge luññetu boobu tajassus la mën naa mënula wax fu mu jóge mënula wax it fu mu jëm ak lu muy doxi ne médisez pas les uns des autres la yaghtab ba'dukum ba'da et pour représenter la gravité de la médisance Allah subhanahu wa ta'ala la compare à manger la chair de notre frère mort ce que vous répugnez dit-il craignez Dieu Dieu est indulgent miséricordieux verset 12 mbokk wala yaxtab baadukum baadan kenn ci yéen bu mu jëw moroomam bu leen jëwante ngir nag ñu xam jëw ni mu bone ak ni mu rëye bàkkaar boobu ci kanamu yàlla yàlla melal ka comme koo xam ne yaakula laxma axihi maytan dafa mbokkam dafa dee mu ñëw di dagg yàppam di supp di lekk fa karihtumu yàlla mu ne bu ñu leen ko waxee sax da ngay gis yéen ni ngeen seen kanam di soppeekoo ngeen sip loolu bañ ka la bu boobaa ragal leen yàlla te bàyyi deru nit ñi ngeen sëgg inna allaha yàlla daal tawaabun mooy ki nga xam ni ku tuub gannaaw bàkkaar yi mu jéggal la rahimun mu delloo si la ci yërmaande la nga cay dégge mooy ku ci sax yàlla du la jéggal ku ci sax génn nga yërmaande yàlla ba faw Mais amis auditeurs, qu'est-ce que la médisance? Qu'est-ce que la médisance? Cette question, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la posa aux compagnons qui lui dirent: Seul Allah et son messager le savent. Il leur répondit: C'est parler de ton frère, c'est dire les défauts de ton frère, là où il n'est pas. Ils lui dirent: Même si ce que nous disons est vrai, il dit quand ce que vous dites est vrai, c'est cela la médisance, la diffamation. Mais quand ce que tu dis n'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est de l'affabulation mbokk yi mu des nag ñu war a xam lan mooy jëw lan mooy jëw yonent bi alayhi salaam bis laaj ko saxaaba yi atadruna mal ghiba ñu ne ko yàlla ak yonentaama xam mu ni leen an tazkura axaa bi ma fii mooy ngay tudd sa mbokkum jullit fu mu nekkul ci ñaawteef boo xam ne mu ngi ci moom gaaña ni ka arayata in kaana fi axi ma dakar waaw li may wax nekk ci moom loolu nan la mën a nekkee jëw mu ne leen loolu bu nekkee ci moom loolu rek mooy jëw in lam yakun fihi ma ma zakart faqad bahatta bu fekkente ni li ngay wax ñaawteef boobu di ka ka askanal nekkul ci moom yow duural nga ko da nga ko sosal te moo gën a rëy fen Enfin, amis auditeurs, sache que le calomniateur est puni dans ce monde, puni dans le barzakh, c'est-à-dire quand il sera mort dans sa tombe, il va être puni, puni dans l'au-delà. Dans ce monde, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, Hey vous, dont la foi est sur la langue et pas dans le cœur, ne calomniez pas, ne médisez pas des musulmans et n'épiez pas leurs défauts, ne dévoilez pas leurs défauts. Quiconque s'acharne sur leur défauts, Allah subhanahu wa ta'ala s'acharnera sur ses défauts jusqu'à le déshonorer dans sa propre famille mbokk yi mu des nag ñu xam ni jëw bàkkaar la boo xam ni yàlla mbugal ci àdduna bi di ko mbugal ci barzaq bu nit ki dee di ko mbugal ci bis ci àllaxira bu dee ci àdduna bi yonent bi alayhi salaam wax mu ne yaa man amana bi lisaanihi walam yadxulil imaanu qalba hey yéen ñi nga xam ni seen ngëm a ngi nekk ci seen làmmiñ yàggul ci seeni xol fu ñu toll rek maa gëm maa gëm mu ne laa tax taabul muslimin bu leen jëw jullit ñi bu leen yàq seen der wala tattabiu awratihim bu leen luññetu seeni ñaawteef bu leen leen weer fa innahu man ittaba awra awratihim képp koo xam ni kii topp nga awra jullit ñi di weer seeni ñaawteef yattabiu laaw awratahu yàlla dana dana luññetu say awra fésal ka képp ku yàlla toppatoo say awra nag lu luññetu ko yafdahu fi bayti dafa lay toroxal du yem ci mbedd mi rek dafa lay toroxal bi ci sa biir dans la tombe la meilleure des créatures nous dit lors de mon ascension je vis au barzakh des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec leurs ongles en cuivre je dis à Djibril qui sont-ils il me dit ceux qui mangeaient la chair des gens c'est-à-dire qui médisaient et salissaient leur odeur mbokk yi ci bàmmeel yonent bi alayhi salaam mu ne ba ma rañaanee gis naa ca barsàq ay nit ñoo xam ni ay weewu përëm la yor ñu ngay xosi gajj di xotti seen kanam ya ak seen dënn ya ma ni jibril ñi ñana mu ne haulaay yaakuluuna luxuma naas wa yaqauna fi aradihim mu ne ma ñii ci àdduna mooy ñi nga xam ne dañu doon jëw nit ñi di lekk seen deret ak di yàq seeni der sache que celui qui écoute un calomniateur et son complice. Nos parents confrontaient le calomniateur à la personne qu'il diffamait. Et c'est ce que recommande justement le prophète Mohammed, paix et salut qui dit, celui qui défend son frère contre la médisance, Allah subhanahu wa l'éloignera du feu le jour du jugement mbokk yi mu des nag ñu xam ni saamiul ghiba sharikul képp koo xam ne dangay nangu di déglu kuy jëw yàgg moom yéen a yem yéen a bokk bàkkaar yonent bi alayhi salaam mu ni li war mooy nga aar sa mbokk ci loola mu ni gis nga man radda an irdi haqi radda allahu an wajhi naar yowma alqiyaama képp koo xam ni kii toog nga ci jataay ñu jëw fa sa nawle nga défendre que weddil ka setal deram mu ne yàlla bu bis pencee dana la sorel safara ami auditeur la médisance est un péché un des péchés auxquels le Coran a consacré une sourate entière la sourate 104 sourate Al-Humaza le diffamateur le médiseur où il informe que le calomniateur ira dans un enfer qui lui est propre c'est le hotama le feu flamboyant de Dieu naarullaahil muqada bokk jëw bokk na ci bàkkaar yi nga xam ni yàlla daf leen jagleel saar saaru téeméer ak ñeent ci alquran suratul humaza waylun li kulli humaza mooy seen saar yàlla di fa wax ñoom seen safara biñ leen jagleel muy xutama mu melal ko mu ne naarullaahil muqada mooy safaraw yàlla wa mu xam enfin ami auditeur la calomnie, la diffamation et la médisance ne feront pas partie des défauts d'un croyant s'il suit ces orientations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous jalousez pas les uns les autres, ne vous opposez pas les uns aux autres, soyez des frères, des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala mbokk yi sabote kookali du bokk ci ñaawteefu jullit li feeg mu ngi topp li ko yonent bi alayhi salaam wax ndax wax nañ la tabaagadu bu bañante wala taxaasadu bu leen añaanante wala tadaabaru bu dogante di wanante gannaaw wa kunu ibadallah ixwanan nekk leen kay jaami yàlla ngeen nekk ay mbokk goo xam ni jaamu yàlla moo koy lan il dit celui qui couvre les défauts de son frère Allah subhanahu wa ta'ala couvrira ses défauts le jour du jugement. Celui qui révèle les défauts de son frère, Allah exposera ses défauts jusqu'à l'humilier dans sa propre maison. Kama tadinutu daan chacun récolte ce qu'il sème mbokk yi wax na moom yonent bi alayhi salaam mu ne man satara awrata axihi almuslim satarahu llah satara allahu awratahu yowma alqiyama ku suturaal jullit yàlla suturaal la bis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

réalisé et présenté en français et en wolof par Mamadou Chérif Diop.